xam nga ne lii pom du new ku seetaan lii sénégalais yi xool atte yàgg na noo xam ne maay sa bàyyi moo tax Zeyna amul jotu lu muy duggee foofu parce que xam na ne ki kum jëm kooku moom la adduna bi di seetaan lu muy def sa live mu di ko taf di ko saaga naan ko waaw cagala tourné kaa bi nag saa si lépp naan waaw moom noonu lay def vidi parce que Zeyna duggul ti live am lu mu fay def TFM nekk nii muy fu muy dugg nday sa morom Zeyna ngi nii te duggul sa live yow léegi Zeyna naa la bàyyi nga nuyoo salaamaaleykum Adama maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fi fekk ñëpp. ñu ngi lay delloo ziar. sama sama xarit yi sama am di jàmm suñu waa kër ñëpp a ngi ci live bi di la seetaan nekkul woon nag lu ma sabablu mais comme fii la toll il est obligé ah ba mun a dugg ko defee mu leer benn yoon mu jeex ku nekk dem sa yoon. waaw léegi Zeyna euh, première demande euh, bi ma lay laaj mooy sa xamante ak Gris ak jëkkëram. maanaam ana nan la nan la demee xamante bi. man personnellement xaw ma sama jëkkër moo ko xam parce que ba mu nekkee xale da doon dem Medina donc foofu la doon fekkanteeg moom mu nekk xale nee na Gris moo ko da doon ànd ak Gris mu koy yóbbu ay plage comme xale bu dem ci vacance rek euh, bu dem vacance Sénégal fekk fa ku fa xaw a mag tuuti mais fréquenté wul Gris àddunaam yëpp parce que toog nañ xamante bi vingt ans yëpp mun nañ ne trois fois ou quatre fois tu l'as connu voilà tu la vu quatre fois la ko mos gis ci àddunaam mooy ba mu nekkee xale di fa dem. mariage le mariage. ak. Euh, voilà ak après quand tu étais au Sali. une fois une fois à Zac ak bi mu ñëwee ni ci kër gi muy ñeenti yoon la ko mos a gis ci àddunaam. mais temps en temps au téléphone. voilà euh, léegi Gris. Euh, mhm. ñëw bi mu ñëw ci kër euh, Waly ba Waly héberge ko ana lan la wax Waly ak nan la demee ba Gris nekk ci kër gi wala ngeen wutul ko appartement muy réeree ci kër gi di dem appartement moom di ñëw. ok dafa dafa woo dafa woo sama boroom kër ne ko dafa am combat bu am <clears throat> importance bu mu bëgg bu am importance bu muy def te gëj na def làmb te soxla na ndimbal. ah bu ko munee jàppale boole ko ay entraîneur comme moom gis na fi ay moroomu mbërëm yu fi jaar dem donc moom aussi il a essayé ak kóllëre gi mu sekkoon ak sama jëkkër xamante bi mu ne dafa soxla ku ko jàppale ci làmbam bi boole ko ay entraîneur sama jëkkër ne ko fii ay champion yu fort ñoo fi nekk ñoo xam ne MMA la ñu nekk ah déjà ñi mu ko boole loon ñu koy entraîner sax chaque fois dama koy wax ku mag ku ñu naan Jibril euh, Jibril Coupé ah ay ñoom Mouhamed Seyane ay nit yu mag daal da ko booleel ñu koy ñu koy dimbale léegi nag sama jëkkër ñëw laaj ma ne ma est-ce que du la déranger mais comme man lu mu bëgg rek bëgg naa ko su ma indilee giri duma mun a def lu dul wax waaw malgré xam naa ne dana métti parce que je suis toute seule dans cette maison ay xale am nga njaboot bi liggéey bi giri ñëw teg sama kaw ma xam ne charge nga ñëw mais bugguma bañ sama jëkkër naan day am gàcce ku mu xam depuis ay années moo ko ñaan service jabaram bañ te man ñëpp xam nañu dama yaatu ma boole lépp lu ma nakari ma accepté ko donc ci la nangu Gris ñëw France ba mu ñëwee dafa en face kër gi nekk en face fa lañ ko jox benn néeg maa dem sax defar néeg bi maag sama benn doom bu ndaw bi changé tout ce qui est drap et bale ko ba mu set raxas ko mu fay fanaan alors léegi moom bu xëyee au début 6 heures du matin la am euh, entraînement su amee 6 heures dafa fekk sama jëkkër nee na ma euh, coach bi def ne pour muy ndékki ba joxoon ko ay euh, omelette yoo xam ne blanc d'œuf rek moo nekk ci bouteille bi donc après les entraînements daf ko war a lekk donc man du ma yóbboo xale yi école du ma mun a tëddaat nelaw il faut ma xaar giri dugg ci kër gi 8 heures te aadamoo man sama jëkkër du sax ndékki moom day yeewu naan ndox liggéey na buggul ndékki donc du ma mun a tëddaat damay toog di xaar giri ba mu ñëw ma ubbil ko defaral ko mu ndékki ba suur après mu dem tëddi nelaw man ma yéeg nekk ci li ma nekk heure añ bu jotee mu ñëwaat añ demaat entraînement guddi mu ñëw mu toog fii ñu jàkkaarloo may live di jaay samay parfum mu def ko pendant deux mois noonu laa dëkkeeg moom bu ñëwee génnee saag bi yëre yëree tilimi ma fóot ba mu set lemal ko jox ko ko mu joxaat ma yu tilim yi de yi yi mu indi maanaam chaque jour yëre yi muy entraîné dama koy fóot ok léegi ndax yow yow ak yow ak euh, yow ak euh, Gris Bordeaux seen relation ci kër gi wala seen relation ci biti dafa demee woon yenn deme yi wala da ngeen di surtout da ngeen di gisante rek nga def li nga koy defaral mu mu jox ay yooyu mu lekk affaire yooyu nga ku ne dem voilà moom bu ñëwee mm. ci kër gi mm. bu lekkee ba pare rek day dem noppaluku sauf que mm. bu fekkee damay taal live comme moom nit ñi dañ koo xam day bëgg toog ci sama live bi di wax pour xam naa nit ñi jënd leen et mais loolu yépp sama jëkkër day fekkee a chaque fois qu'on la là le soir tu la là sama ah, jëkkër day toog mu ngi lay dégg ah, amul musuma toog wéet ak giri fu sama jëkkër nekkul xanaa mm. heure añ bi nga xam mm. ne moom ci liggéey liggéeykaay la koy fekk mais guddi fu mu jotee sama jëkkër du taxawaalu du dem fenn liggéey wàcc ñëw toog ci kër gi sama wet loolu la xam mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu leer na ah, kon defe naa sénégalais yi pour ñu jéem a comprendre maanaam nekkul ne ndaw si moo fa indi giri mais jëkkëram moo ko indi ci kër gi waaw léegi nag jabar ji bañ koo xatal mu accepté giri léegi nag wàllum moo jël parfum yi wala jëru ko maanaam naka la wàllum parfum yi demee ndax ndax 3000 euros yi à mille euros ay parfum kese la wala dafa am xaalis bu ci la xaasu tamit. alors pour parfum yi explication bi lu ma li ci mën a wax mooy giri li may sàcc yépp man musuma ko gis musuma musuma ci bàyyi xel parce que lu tax musuma ci bàyyi xel Adamo hmm. parfum yi may jaay. musuma def ay ay inventaire wala di compter man li ma neex ci parfum yi rek mooy di am parfum yëpp ñu naan ma naa am nga bii ma leen koy jaay parfum yi sama jëkkër pour mu wéttali ma moo tax mu wutal ma ko. Mm-hmm. du bees besoin parce que buggul may génne di dem di liggéeyi daf ma ne naa toog ci kër gi parce que liggéey bu ëpp yor kër yor njaboot amul lu ko gën a métti donc mënuma ko booleek liggéey. mu mhm. teg ma dans de bonnes bonnes conditions xam ne dama am amuñu parfum mu wutal ma parfum yoo xam ne xale jigéen ñi bu ñu ko doon jëndee cent mille mun naa leen ko en fait du ma sax jarul sax may wax foofu parce que day mel ne euh, damay publicité te alors que loolu indiwuñu fi. alors amour la rek ak loo xam ne daf may wéttali bu fi nekkul looloo tax mu teg fi parfum yi léegi man xaalis bu ma xale jigéen yi jox muy un million di deux millions dama koy dem jëndaat ay parfum ñëw teg ko donc giri chaque fois lu muy wax. bu fekkee ne am na ñu nekkoon sama live tout le temps di gis xam nañ ne giri waxam tout le temps mooy mais Zeyna ah yow xaalis bu ñu la jox nga jëndaat ko parfum yow kañ ngay ma ne ko giri man soxlawu ma xaalisi parfum yi jaay parfum bee ma neex donc xam na ne man du ma prêter attention ñaata parfum laa jaay ñaataa dugg sama ay propre client dañ may woo ne ma Zeyna kañ lañ lay fay ma ne ko fay nga mu ne ma fayoo ñu ngi ci live bi mun nañ ko seede en direct ñëpp di ko gis damay jaay nit ba pare ay 200 euros 300 euros mu topp ma pour ma fay ko parce que fàtte naa ko binduma ko. Hmm. yàlla xam na ko. Hmm. donc moom loolu yëpp xam na ne kon kii nekkul di daaj potu condamné wala di dajale parfum bi kii day jaay parfum pour plaisir kon dinaa ko jël du ko yëg te effectivement jël na ko pendant deux mois yëguma ko. Hmm. léegi maanaam moom valeuru parfum yi. naka naka juri daan sàcce ak sàcc bi nan lay demee ba nga xam ne maanaam sa parfum yi manqué na ak ak lan moo la xamal ne la Gris Bordeaux maanaam moom mooy sàcc parfum yi. ok alors euh, premier bu ma damay wax léegi fu ma remarqué sàcc bi rek ba pare. Hmm. fu ma remarqué sàcc bi mooy maanaam giri mënoon na ma sàcc ba ñibbi te duma ko yëg mais li waral ma xam ne daf ma sàcc veille bi muy dem dama jaayoon en live quelques parfums ma teg ko ci kaw table bi après mu ñëw fëgg ma parce que il avait emprunté une valise. il demandait une valise. il demandait une valise après sama jëkkër mu ne ma ci guddi bi génneel valise bi ci garage bi pour giri. ma génnee valise bi ci garage bi ñëw teg ko fii parce que xam naa dina ko jël si ma yóbbu xale ñu jàngi ba pare ma ñëw tëdd ba ma tëddee di nelawaat ay côté 11h30 midi ma dégg muy sonné di sonné ma jóg mu ne ma naa baal ma de valise bi man koy wax nga dëgg tey ngay ñibbi mu ne maa ngi jégalul ci dérangement bi man ko c'est pas grave valise baa ngi nee après ci la jël valise bi te valise bi euh, kii bi baaxul comment dirais-je fermi waaw trop petite que bi baaxul Mm. après mu ne ma valise bi dafa am problème il faut que ma wut beneen valise. Mm. ma ne ko bon voyage di nga ma wéetal nag dootuñu gis ku ñuy live ak di waxtaan. Mm. pour man suñu suñu waxtaan fa lay yem après peut-être bu yeggee dinaa ko woo ndax bien nekk te nee de du demee noonu. ma yegg tëdd ba mu yàgg mënu ma nelaw aadamoo ma ne xaaral ma wàcc defar colis yi colissimo yi war a dem ay Paris ay Italie et tout. ma wàcc xool taable bi gisuma parfum yi. yi ma yi ma jaayoon pas yi may jaay mais yi ma jaayoon ba teg ko de côté ma ne mii ça c'est man démb jaay naa ay parfum fii ma toog xalaat xalaat jaaxle parce que sama fit bi def na rëf parce que mënuma xalaat ni giri moo ma def loolu mooy sàcc samay parfum après ma ne xaaral ma dem xool ci débara bi yeneen parfum yi nga xam ne jaay naa ko arrivé la ba ma xool gis ne carton client bu ma teg parce que j'ai des clients yoo xam ne ñu ngi euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ay Angleterre dañ may wax Zeyna lii lañ bëgg ci parfum mais buñ ñu ko envoyé léegi dañuy jël di jël ba mu bëri nga door ñu ko yónnee ma gis ne carton yooyu yëpp am na yum ci ramassé ba mu mot 27 parfum mm-hmm. genre li manqué ci table bi ak lim jël ci débarras bi ci pake yooyu mot na 27 parfum ma ne là il est temps que j' appelle mon mari. Mm-hmm. c' est là j'ai pris mon téléphone j' appelle mon mari ma ne ko fan nga nekk mu ne ma maa ngi si liggéeykaay ma ne ko il faut que nga ñëw léegi ci kër gi. Mm. parce que je constatais que Giri daf ma sàcc ay parfum mu ne ma mm. tee sérieuse ma ne ko viens voir mm. mu jóge kaayam ñëw ci kër gi ba mu ñëwee ma wan ko expliquer ko ñu ànd xool fi parfum clients yi nekkoon mu xool gis ne vraiment y a des parfums qui manquent après mu jël téléphone am ne ah, allo. Guède waaw maa ngi ci live naa la waa pare. waaw waaw dama la waaw naa la woo après léegi nga ñëw ci giri kii moo gét la nee na mu fayal ko parfum yi wax ji jeex waaw dinaa la woo léegi. xaaral ñu daal non j'ai pas besoin j'ai pas besoin de l'argent du parfum. léegi Adamo sama jëkkër ñëwee mu woo Gris déjà ne ko allo Gris foo nekk Gris ko maa ngi Decathlon parce que valise bi baaxul damay beneen valise mu ne ko soo paree Decathlon xaar ma sama boutique ma jël si la pour yóbbu la gaar ba il a fait ça pour avoir le temps d'ouvrir sa chambre. daa ngi dégg il a la porte en deux mu dem dajji bunt bi dugg ci biir woo ma appel vidéo mu mm. yebbi parfum yi mu jot a sàcc fii ak quelques yu fa ne woon. Mm. non man ah, gis naa appel vidéo bi. ñuy jël di dugal ci kii bi loolu gis naa ko. appel vidéo baa ngi loolu néegu giri la. waaw loolu maa ko yore foofooy néegam. waaw foofu mooy néeg bi ko jox jaxasoo na de. néeg bu mel ay kañaa ci fanaan. néeg bi ëpp na boo gisoon. ni mu ah. joxu leen ko néegu nit de. sax nañ continuer. acca après après ba mu ñëwee Gris woo ko ne ko allo Wallace foo nekk mu ne ko je suis à la maison mu ne ko on m'a cambriolé sama jëkkër ne ko maa ngi ñëw. day cambriolé. mu ne ko dañ ma dañ dañ dañ koo dajji quoi dañoo dajji buntam bi et tout. tu as après je l'ai appelé quand j'étais là mhm. m'a dit je train de faire mes que moi j'étais sur place. voilà ba mu woowee Gris ba mu nekkee di récupérer parfum yi ci néeg bi. dafa woo giri ci néeg bi ne ko giri foo nekk giri ne ko maa ngi ni di defar samay samay bagage te moom mu ngi ci néeg giri te nee na ko mu ngi ci néeg bi defar bagage moom mooy wax yaa ngi koy dégg. Hmm. mu xam ne foofu giri fen na. ci la jël parfum yi indi ko ci kër gi 15 minutes après ci la giri ñëw woo ko ne ko dañ ma dajji sama jëkkër ne ko xaar ma ma ñëw. Ah, après ah, giri dem giri ci boppam moo woote ne moom dañ koo dajji. dañ koo dajji. danoo daaj ci maanaam néegam. waa léegi après waali ne ko waali ne ko yow bu ma la woowee léegi téléphone yaa ngi naan ma yaa ngi defar sa bagage. Hmm. kon ça veut yaa ngi door a yegg si sa kër. waaw te sama jëkkër nag dem direct foofu nag fekk ko fa hmm. menacé ko xas ko hmm. comme d'habitude boo fekkee sa xarit bu la sàcc ku la bett li nga koy wax mu jiital ko nag indi ko ci kër gi. ba mu ñëwee man aussi ma xam ne sàcc am na te day ñibbi xaw ma ëllëg lan mooy xew ma jël sama téléphone. di enregistrer li ñuy wax yépp léegi ba ma évaluer parfum yi mu yi yi ma yi ma gis ne sàcc na ko. Mm-hmm. ma ne ko léegi ci lañ ko laaj huit cent euros na ko remboursé mu dem ma dem wax bi jeex. ñu mm-hmm. suturaal ko. mais na ma fay sama parfum quand même. waaw mais jot naa jot jot jot ci li ma ah, xam. fay na ma sept cent soixante dix sept euros. waaw kay loolu laal bëggoon a wax jote naa joxe sept cent euros. waa non 777 euros c'est ça. nga joxe kan moo ko joxe giree ko joxe. wala ko ci giree ko joxe ci turu Mouhamed Gueye. ci xorom Mouhamed Gueye. waaw Mm. ba mu ko joxee loolu mooy ba mu yeggee Paris. Mm. maintenant nuñ dimanche bi nag lañ doon xool di parce que sama yaay nee na ma nit ku lay sàcc chaque jour di nga gis lenn. ci la sama xel dem ma ne xaaral nag ma dem defar débara bi ànd ak sama jëkkër on est parti voir le débarras fi ñuy def stock bi gis ne giri stock bi la doon buub maanaam tiroir yi ma doon def stock de côté nga xam ne duma ko laal yooyu la doon génnee di sàcc di sàcc valeur u mille euros. léegi yow euh, nan nga ko calculer ba ba xam na yow lii man na. parce que 3000 à 5000. à 5000 parce que toile bu nekk xam naa ñaata parfum laa fa doon def. Mhm. toile bu nekk xam naa ñaata parfum laa fay laa fa doon def euh, Adama loolu mhm. épargne la bokkul parce que lu tax ma fa doon épargner c'est pour am stock parce que dañ ne ma parfum boo koy jaay te amoo stock doo mus a lekk xaalis bi loo am danga koy jëndee waat. Mhm. donc je mettais beaucoup de parfum là ok léegi parfum yi nga yaakaar na yow Gris Bordeaux sàcc na ko yow ci kër gi ak diggante bi maanaam parfum yi fan nga yaakaar ne Gris Bordeaux fa la ko yóbbu wala fa la ko mën a jëme ci lim la sàcc maanaam fu parfum yi nekk ma ne tax ma xam ne que daf ko yóbbu parce que déjà sama benn xarit daf ko fi jëndal 1000 euros parfum en live ñëpp fekkee ko 1000 euros parfum 1000 euros parfum hmm. ma ne ko du la jaay 1000 euros dama lay jaay 700 jël 300 yi liquide teg ko sa loxo hmm. ñëpp fekkee nañ loolu ci live bi ma jaay ko 700 euros parfum jël 300 euros teg ko ci loxo giri. Euh, Ramata il faut nga bàyyi ban daaneel ma doog lay jël Ramata dama nekk ci live bi. ok continue. yaa ngi déglu. Hmm. Ramata il nga bàyyi ba ma daaneel live bi demal waaw. voilà après ba ma ko jaayee pare ma yëkkati ay parfum mu ne ma man nag loo may may ma may ko li ma koy may may ay soxnaam mu gàddu yóbbu mais ba sama jëkkër demee dama ne ko parfum boo fa fekk indi ko comme sàcc la. mais yooyu ma ko jaayoon ak yi ma ko mayoon fekku fekku ko fa ci laa xam ne donc giri soit mu ngi koy jox envoyé. waa ba pare da doon dem seeti jabaram bi et tout à Paris donc c'est là j'ai doon foofu la doon yóbbu parfum yi. parce que mu ma doon demandé GP bi may jox sama parfum et tout comment ça se ci laa xam ne ne kon li yóbbu ay parfum yi ma ko jaayoon nekkul ci néeg bi looloo yóbbu sama yeneen parfum yi voie boobu la ko doon jaarale. da koy yóbbu ci jabar ji jox ko GP wala je sais pas. mais dafa doon rawale. léegi question bi nag déglu ko bu baax a baax. xam naa mhm. bokk na si fee dernier question yi. Mhm. ok léegi yow Gris Bordeaux. Mhm. Euh, maanaam nan nga mën a xamee ne maanaam Gris Bordeaux moom moo la sàcc maanaam li nga xam ne moom mooy valeur u trois mille euros à cinq mille euros ci ay parfum nga jàpp Gris Bordeaux mu nekk sa sàcc maanaam nga téye ko nga jàpp ko. nga def ko ay vidéo mu jéggalu nga xam ne ki sàcc na la. Mm-hmm. yow nga mën a bàyyi am ngor googu toll noonu nga bàyyi Gris Bordeaux mu dem ba mu dem. Mm-hmm. nga doog a mm-hmm. génnee bi maanaam lu tax yow maanaam ba nga ko jàppee ne moom dalaa sàcc. li jënti woo ko parfum yi génn bu dee wala bu dee xaalis mu jox la ko. bu dee parfum mu teg ko sa loxo. c'est très important loolu ba mu amee sama jëkkër ne ma dee du ko suturaal parce que daf ko wor. Mm. may seddal di baab sama jëkkër di wax ba sonn sama jëkkër ne dee dina ko boole ba jot na ko wax ay quelque am di jàmmam jabaram ak ñëpp mu wax leen ko yónnee leen vidéo yi. Mhm. man ma toog am lu ma naqari torop parce que lu ne xalaat naa ko. Mhm. lu ne xalaat naa ko njabootam doomam mi mais sama jëkkër tëdd ci suuf ne dee ñëpp dinañ xam ne giri sàcc la. Mhm. ma dem nag mënalu ma ko dara mënu ma ko arrêté. mais lu tax mu toll fii tey. giri de moo tax mu toll fii tey. Gris 2 mooy rakk ji mooy Maodo mooy Maodo Gris Bordeaux ba tey jotuma benn message am te pourtant bloqué wu ma bloqué wu ma ko mais dama jàpp ne gàcce moo ko jàpp moo tax mënul wax ak man ba tey Gris 2 moo génn jël message yónnee ko sama téléphone di ma saaga di ma menacer di ma traiter loo xalaat ci àddina moom moom dafa toog parce que yoonam newu ci yoonam newu ci waaw bu amul wax mooy wax amul lu mu lay traiter leen noo naan caga ngaam Sirine nga doon def ak ko doon ki ak yooyu yëpp loolu yëpp amu ci benn li ma wax yëpp ci vocal yi ay wax yu bon la xam nga wax yu bon kenn dàq ñu ko mais tey dama ñëw ma traité ka bi ci discipline ngir taalibe Cheikh la man taalibe Cheikh laa lu ñuy leeral nan ko leeral ci discipline ay mag dañ ñuy seetaan ay xale dañ ñuy seetaan du lépp la ñuy lijjantee ay saaga ndey kattal sa ndey sa data yaay lijjantiwul dara nanu wax affaire bi ci euh, euh, ci diplomatie Sénégal yi déglu ko ci diplomatie ñu ñu xool affaire yi ci diplomatie mais Maodo li muy def noonu waru ko parce que du yoon noonu la demee continuer voilà mais bëgg na léegi nag li Maodo doon euh, doon wax di tout le temps di ma di ma saaga di ma menacer bay dem ci internet bi looloo waral sama génn parce que ma ne comme léegi nag moom mu ngi wër di yàq sama der te man mérité wu ma lii baax rek moo ma taxoon a jóg il faut que nag ma nit ma génn ma wax mais dama bëgg aussi nit ñi xam ne Giri buñ ko siiwalee àdduna bi yëg yëpp yëg ko sama jëkkër ji toog la moo ko siiwal moo ko wax vidéo yi moom moo ne audio ak vidéo yi faaw mu génn. mais yow àndoo woon ci mu génn. j'étais d'accord pour euh, dénoncer Gris oui ou non. non. c'est qui ah, qui a pris l'initiative de dénoncer Gris. c'est moi. et qu'est-ce que tu m'as dit si je rentre dans ton chemin pour pour te stopper. la gueule. merci beaucoup. cey moom de gaaw na ci kas laa gël bu paree nga jox ma ko ndax na na ma war a kasee laa gël bu sokono stress moom laa koy laaj bu ma paree ci yow léegi sama rakk mu ngi nii toog jour boobu noonu moo ñëw ne ma génn ci Zeyna bàyyi ko mu def lu ko neex yàlla def na mu nekk nit koo xam ne bu nee tey dina la rey dina la rey moom dara du ko arrêté c'est pas gris 1 c'est pas gris 2 c'est pas gris 3 gris pas hmm. léegi yow moom nit moom borom gris 4 ñi ngi ñëw ci moom Eva déggal ma naan Eva kii nu mu Zeyna waaw ñi ngi ñëw ci sa jëkkër instant bi ñi ngi ci yow ñi ngi toll sa côté maanaam ki nga xam ne nii mooy Maodo yëkkati na ay kàddu yu ñaaw yëkkati ko moom moom jot naa ko téléphone 4 minutes bu ngeen bëggee ma tegal leen appel bi maa ko enregistré la rakku Gris Bordeaux 4 minutes. Mhm. la muy waxee parfois yi sax boo du ca bëggut sori noonu. mi ngi wax mhm. ci kàddu waaw moom dafa dem ay jabar intéressé ko mu jàkk-jekk woo ay yu kenn xamul daal la nettali ci 4 minutes yi maa ngi ojo bi maa ko enregistré. yaa ngi mhm. dégg rakku Gris Bordeaux maa ko enregistré man maa ko téye léegi nag. li ma bëgg a xam mooy Zeyna. Mm-hmm. lii da lay yee ci àdduna yee sa jëkkër bu beneen yoonatee parce que yow sa kër mbër mu ne jaar na fa. Mm-hmm. booy ñaa jaar na fa sa jëkkër entraîné ko boole kook ay nit ba mu duma mm-hmm. Balla Gaye daan ko sa kër la nekkoon. mbër bu nekk jaar na sa kër. kili bu titi bi sa kër jëkkër lañ ko turne fële ca ca senegal kon sa jëkkër ku baax la day jàppale ay nit mais di di leen yee pour bu ëllëgee ngeen jël seen matuwaay parce que sénégalais xamul ku tooñ ku fayu la xam. ñëpp danoo yaakoor danoo jëloon sa der bi teg ci lu ñaaw naan day taxawàlloog jigéen ñi pare dañuy teg ay jil luus naag waxul la ca biir les éclairement yi nga fi indi c'est clair et net ba pare audio yi nga indi ak vidéo yi c'est clair et net Gris mm. Bordeaux nag bu amee lu muy leer na ñëw ci live bi onze mille personnes ñooy si daan mu live am na preuve na génnee preuve yi Maodo mi lay sosol lim lay sosol ndax am na ci preuve na ko génnee bu ma ñu wax ak yow mais jusqu'à jusqu'à ah preuve à man maa ngi sa côté parce que ku nekk danga koy jàpp ci koo bokkal ndey ak bàyyi ni Maodo génnee tey jii di yàq deru ku jigéen ki pour pour. monteel ma ay vidéo porno ma ma ñëw mënu koo def may ma ma daaneel ni Maodo génnee di yàq deru ku jigéen ki pour setal deru frère parce que frère dafa am carrière ci làmb ji xool leen ko ci ku mu nekkoon sa rak boo bokkal ndey ak bàyyi wala sa mag du la neex parce que sequl ak Maodo dara. moom la ak Gris Bordeaux génn na leeral indi ay preuve Gris bu ci bëggee génn na indi ay preuve leeral ni mu demee mais du yónnee ay Maodo wala muy yénn n'importe qui ci TikTok bi naan ko waxal ma nii la demee nii la demee ñu koy sosal ak wax lu bon xool leen ko ci ku bokkal ndey ak man dëgg laay àtte yooyu d'accorduma je suis pas d'accord waaw léegi nag yow Zeyna li dalay yee pour bu ëllëgee nga mën a xam ñi ngay dimbali man nag dégg naa ne sa jëkkër ku baax la day dimbali ay nit te dégg naa la yow jigéen gu mën góor nga waaw kay man dégg naa loolu lépp mais lii dalay yee pour bu ëllëgee nga xam fi ngay teg sa tànk xam sa jëkkër fi muy teg tànkam lii maanaam du dara de àdduna la dalay yee rek leçon la bu mu lay jàngal bu beneen yoonee nga xam ko ndax foog naa lii moom dootu la dalati vrai ou faux ah Zeyna allo waaw Zeyna ubbi sa micro bi ma ne vrai ou faux lii dootu la dalati dëgg la c'est fini c'est fini plus jamais nit ñëw sama kër ku mun ci doon fii kenn doot fi dugg man nag ah def lu baax rek moo ma ci jublu woon ak déggal sama sama jëkkër moo tax mais c'est fini yàkkal na ñëpp kenn dootu fi dugg j'ai plus personne voilà waaw léegi nag noonu la demee léegi nag wàllum parfum yi mhm. da nga décider moo gën woote na appel Amérique ne mhm. mu fay la njëgu parfum yi wala da nga décider yow maanaam jëggal ko baal lépp ci xol bu sedd guy mais kenn du ci waxaat nag parce que soo ko baalee nga jëggal ko. amul dem ci live di wax. live bu la woowati déglu ma live bu la woowati doo fa dugg. non fu koy doo ko fekke fii laa bëgg mu yem fi tey fii laa bëgg mu yem fi waaw kay léegi moo tax ma lay ndax ko giri de mu bàyyi ma. waaw kay léegi yow li nekk sa xol ak li nga yéene ak li nga bëgg laa bëgg maanaam yow nga wax ko Sénégalais yi ñu déglu la ma doog jël gaa yi maanaam ndax da nga da nga décider jéggal ko baal ko lim la def lépp te yàlla tax. pare dootoo ci waxati kaa bi tëj nga ko kolos nga ko pour sa maanaam amatul wax ci live amatul génn amatul dara wala nan nga ko bëggee sénégalais yi ñu ngi lay déglu. alors Kanta moo géet lim ne daf may fay parfum jaru ko parce que coow li toll na fii giri dégg na am na lu ko nakari man maa moom parfum yi maa koy jëndaat côté boobu jéggal naa ko man giri du sama problème. yow sa problème mooy Maodo Gris 2 lim lay wax mooy sama problème te dinaa ndax lim ma def daf ma métti man Gris bu ma sàccee Maodo moo tax problème bi yegg fii Maodo moo tax ay vidéoom génn Maodo moo tax ñëpp di ma dégg ci internet bi. mais bu doon sàcc Maodo parce que Maodo tamit dafa war a bàyyi di waxte amul preuve fekkewul hébergé wul ko tëddul ca ba. tuunam toogul ca photo ya yoonam newu ci fekkul ko sàcc jaayul parfum jëndul parfum fekkewul fan koy jaaye fekkewul ba giri di sukk di raam di jéggalu fekkewul nan ko doon vidéo ak na mu daan daana suturaaleel ma fekkewul dara kon buñ ko nettalil mu génn sans preuve di wax ak di yàq deru ko jigéen ki d'accord ma foofu Maodo dafa juum parce que loolu ku ma bokkaloon ndey ak baay du la jigéen dafa fragile jigéen weenam yi ni mu sëggee noonu la xel bi sëggee faaw ngeen koy yërëm di yërëm jigéen maa ngi wax yërëm jigéen nag mais waxuma ci envoyé seen data yi de ak di kattante di vidéo seen bopp waxuma ñooñu de yow mi xanaa xamoo Zeyna bu fekkoon yaa hébergé giri affaire bi du demee nii ba ma njëkkee def ci yow vidéo dama foog ne yow yaa hébergé bi giri sa kër ndekk sa jëkkër la looloo la may saas waaw kay waaw loolu rek parce que man damay gës bu ma dalee ci kaw nit après damay dem taxaw ma jëlaat sama conscience tranquille ma xalaataat def ay investigation dugg xool yónnee